émission bi nga xam ne moom la ñuy def ci diggante diiru gàmmu gi waxoon nañ leen ci weer bi tàmbale ci lañ koy tàmbale te alhamdulilah depuis boobu léegi yéen ngi gis ñi ngi ànd ak yi nga xam ne ren ñoom ñoo ñu couvrir ci émission bi di oustaz Mouhamadou Moustapha ak oustaz Mouhamad Nourou wax naa leen ko ba tey démb gis ngeen oustaz Mouhamadou Moustapha ñëw na ci jikko mu indi nekk jikko bu amati solo ñaan yàlla yàlla defal ñu si dégg ak topp tey nag ñu ngi ànd ak oustaz Mouhamad Nourou xam naa incha allah dañ koy bàyyi mu nuyoo su paree ñu dugg ak moom ci émission bi ñu laaj ko tamit laajaale ko ban thème la indil tey ak benn jikko la ñu war a indil ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñu jàngee ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar yéen ñëpp di ndokkeel Cheikh Al Khalifa Hadj Pape Cheikh Omar Niass di leen ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala tàmbali ci bismillahi rahmaani ci ay fan ñu ngi ñaan yàlla matal ñu dimbale ñu bañ matal ko jàmm ci barke yonent bi te gi oustaz ñu ngi lay nuyu aouzu billahi min shaytaani rajim bismillahi Euh, ñu ngi tàmbalee suñu wax ci turu yàlla di sant yàlla subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni moo bindu doomi aadama euh, tëbb ko ci xel tëbb ko ci volonté waaye tëbb ko ci li nga xam mooy conscience yooyu tax mu jël ko gënale ko ci mboolem mbindeef yi sant ko moom ak jinne ne leen na ma jaamu ñu ngi seede ne mooy yàlla ay dëgg di seede di julli di selmal ci sang bu màgg bi borom guddi yi sayidna muhammad sallallahu sallam moom mi nga xamante ni moo ne addawni rabbi wa ahsana ta'dibi moo ne yàlla moo ma yar mhm. rafetal sama yar moo moo mooy ki nga ma wax tamit ne بعث لأتم لأتمم مكارم الأخلاق يعني يونينما غير ما مرتلي ديكو يرفدي موتاخ موم موي مينديف مادمي يعني يال جلس موم اك نيام اك صحابامي تغرم بولم غاي باه ييغا خامتيني ньо دونو ليرام يا امين يا رب دي ومب نيت ني دي لن جيما سي حضره بو سد بو تد با امين يا رب يا الله ا آه، نيغ لاي واخ وعليكم السلام سيدنا سي عمر ديك واخ تيليسبكتاتيري ديال نيو نيو الاسلام نيوم تمت في رفد لو جتايبي نيان يالا نو برام تارو ماتيكو يالا نكو تارو تا ماتيكو ان شاء الله ا دي امبيكتي بو باخ دي وقتانتي يونتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم واي سي جيكوم ييغا خامتيني ا تي لا دوني modèle bi nga xamante ne moom lañu yàlla joxoñ mhm. wax ñu laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon Seydina Omar kàddu looloo ne wa kàddu nuyoo yi di sant yàlla bu baax di la ko delloowaat. macha allah dégg ngeen ko Oustaz nuyoo bi motale bi wëpp te am solo ñu koy delloo nuyoo bi di ko ziar di ñaan yàlla defal ko tawfiq ak taysir ba ñu mën a motali. wax naa leen ko yéen ñi safoo di seetaan site bii di Shamsu TV seen émission asamaan al muhammadiya ñëwaat na tey ci seen dixième numéro yaakaar naa ne tey su ma juumul ci la ñuy arrêté waxuma la nag fii lay yem mais danañ ko continuer ndax jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, nekkul loo xam ne dañ koy jëlal benn dar rek ne fii lañ koy waxtaane mais incha allah émission bi day continuer oustaz ginnaaw loolu ban jikko nga ñu indil tey ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ban lañ mën a jëriñoo tey ci émission bi incha allah waaw Seydou euh, bi moom géej la goo xamante ni du du jeex te guddi yi dañoo limu dañoo dañoo limité wu moo tax dañuy cof rek comme niñ ko defee ci guddi yi weesu tey tamit ñu bëgg ñëw indi beneen jikko boo xamante ne yonent bi jikko woon na ko ñu war ko caa roy mu doon ci exemple te mooy joxe wala tabe macha allah muy jikko ju am solo eh, jikko joo xamante nii Euh, islaam ci la taxawe ndax islaam dara taxawalu ko lu dul jihaad si bakkan mm-hmm. ak jihaad ci ci alal loolu mooy jaahidu bi amwaalikum wa anfusikum mm-hmm. loolu lañu yàlla xiir te moo taxawal lislaam mm-hmm. moo tax joxe nekk loo xamante ni société yi ci lay taxawee diine ci lay baaxee lépp ci lay baaxee euh, pour ñu waxtaan ci jikko jooj nag waxtaane ko ci cadre l'islam rawatina ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay laaj ñu xam falsafa philosophie islam ci alal wala philosophie islam ci yore ni alal islam ñu mu gisee alal wala philosophie alal mën nañ kaa tënk ci ñetti yëf rek mooy nit ki toujours war naa jéem a jóg uti ba du laaj waaye war naa jug uti tamit ba jaamu yàlla bu kawee bi di joxe mu mën saa jaamoo yàlla ndax jaamu yàlla yu yàlla gën a bëgg yu mu gën a sopp yu gën a gaaw si jeg jegeele borom bi nit ki si borom bi mooy joxe joxe ah, moo tax moo tax ñi nga xamante nii dañoo sàggan ba yàlla faat leen ba def alaxira bu ñuy rëccu lawla aqaltani ila ajalin qaribin fa asaddaqa lawla aqaltani ila ajalin qaribin fa asaddaqa fa wa akun mina saalihin fa la ñu akra allah nafsan ila ajalin kon lu doon géeju mooy yàlla na leen may rek benn laxas rek ñu dellu ko si àddina bu ñu demee niñu julli wala or wala def da na def ndax xam nañ valeur yi sarax si yàlla kon moo tax nit daan xir soxla soxlawuñ alal waaye dañ daan fexe fexe ba am loo xamante nii dañ ko mën a joxe si yàlla ndax jaamoo ko yàlla. Mhm. waaye tamit buñ tàllal di laaj kon philosophie bu njëkk si lislaam mu ngi noonu. Mhm. na nga liggéey. liggéey ndax lan ndax bu laaj ndax lan ndax nga mën a ñu sa borom ci joxe kon joxe dafa am solo. am na solo dañ ci ñëw incha allah ñaareelu philosophie bi mooy euh, nga fexe ba. ut gi ngay ut boom rax tooñ wala jalgati mm-hmm. maanaam bu bul ut loo bu ko amee noo xamante ni ah. neexul yàlla da nga kaa am si jaru nit ñi da nga si exploité nit ñi da nga kaa am si anam boo xamante ni jaaduwul kon loolu philosophie ndax lool boo xamee dang nga si am bakkaar mm-hmm. ndax bëri na si xadis bi bëri na koo xamante ne ni dafay tukki si yàlla karaw gi pënd copp muy guddi di fanaan di jaamu yàlla di yëkkat loxo di ñaan naan rabb rabbi ah hmm. waaye yont bi nee na la muy lekk dafa xaraam la muy naan dafa xaraam ah bil xaraam ah ya yont bi ne naka la nangoo ñaan waaw kon looy lekk ndax ndax yaram boo xamante ni li kaa bi nee na safara moo si gën a xëy kon <laughs> nga philosophie islam utal ngir boo laaj ngir nga man di participer di jox nit ñi waaye tamit su ut gi na nekk ci anam ko lew lum tuuti tuuti barke macha allah ñetteelu philosophie bi mm-hmm. mooy boo utee ba pare alal ji bu ko rënk <laughs> alal ci lislaam biñ ko rënk ah. rënk mooy ah. def nga sa aajo ba pare ngay dencal aajo ju aajo ju sotteeku mu sotteeku aajo ju ñëwagul ah. aajo jooy imaginer loolu mooy rënk alal ñooñu la yàlla tëkku alladina yaknizuna zahab wal fiddat wala yunfiquna fi sabilillah fa basir bi azabi alim yawma yuhma alayha jibaahum yawma yuhma alayha jibaahum wa junubuhum ah, wa yaqulu zuqu ma hada ma kanastum li anfusikum fa zuqu azaaba faw lu ko yàlla waxee kon aaya boobu aaya bu bu ragallu la yàlla di wax ci borom ñi nga dañuy rënk alal ak nu mën toll ñi nga xamante ni dañuy rënk ah, xaalis ak or te duñ ko financé si anamu topp yàlla yi hmm. nang leen bégal bugal mu métti bis bi nga xamante ni seen alal dañ ko jël tangal ko bam tang di ko paase seen xar yi hmm. di ko paase seen digg gannaaw yi ñu leen ñuy wax mos leen lii mooy li nga xam mom ngeel ngeen tënkoon si àdduna waaw gis nga philosophie l'islam doy na waar ci joxe philosophie ñett ñet ñet motax ñet ku ko saxo ku ko comprendre si l'islam te yoonte bi jox ñu exemple bu mat

bu bu bu bu bu am solo ndax yoon ci bi moom la ñu xooloo si lépp mhm. boo buggee xam comprendre euh, saqaafa islamique culture islamique xoolal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo buggee dégg alquran xoolal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax moom mooy modèle bi loo bugg a def rek jàng si yonent bi kon yow mu ka te dangaa yor alal wala am nga si wàllu joxe xoolal yonent bi lu mu doon def moo tax mu am solo ñu jàngat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa boobu lan mooy joxe lan mooy tabe quoi. mooy joxe lan mooy tabe arab yi nag dañ kaa amal baat yu wuute. Hmm. am na karam am na am na al ah, saxaa am na juud am na ifdaal am na inaam yooyu yëpp ay kalimaat la yoo isaar ah yooyu ay baat la yoo xamante ni day abu wàll joxe wàll tabe waaye ñun boo xoolee ci olof daanaka amaluñ ko lu benn baat mooy tabe tabe moo tax man baat yooyu yëpp ba ma xoolee dama ne si olof daal mën nañ ko appelé ñaar mhm. kuy joxe ak tabe kuy joxe ak tabe est-ce que kuy joxe ku ne tabe o ah déedéet ah. ñaari am na différence nit mën na di joxe waaye àggul dara jaay tabe nag ah. ki nga kan mooy ki nga xamante ne ni mooy joxe mooy ki nga xamante ne dafay jël lu baax si alalam di ko joxe hmm. te séentuwu si dara waaye nag bu koy joxe hmm. dafay nattale dégg naa nattale dégg baax na lool ah. jël na lu baax si alalam bu koy joxe te bu koy joxe ci anam yu baax yi séentuwu si dara séentuwu retour si dara hmm. waaye bu koy joxe nag dafay nattale day nattale li muy calcul benn mu nattale ne ku muy jox lii la soxla rek mu nattal ko lu mu soxla wala buy joxe muñ xalaat man lii su ma ko joxee danaa dese nangam kon danaa mën a dund si nangam nangam kon dafay calculer ñaari boor yi dégg naa koo de yox joxe kat la joxe la kon nga dégg si ku dul koo xamante nii de buy joxe du joxe lu baax koo duñ ko tuddee joxe kat koo xam ne buy joxe dafay xaar kooku du joxe duñ ko tuddee joxe kat donte mu ngi joxe kon ñoo ñëpp mën na naa dugal ci cadre ku nay kuy joxe ngir boppam da ngaa yore mbooloo joxe ngir mbooloo mi topp la rek boo ko ñàkk yow hmm. tabe woo joxe woo nekkoo joxe kat waaye sa bopp ngay jox kon da ngaa nay ok bi weesoogu la ba léegi dégg naa léegi naa la bu kon kook mooy ki nga xamante ni mooy ku ne ak kuy joxe kuñ mën a wax kii dafa mën a joxe léegi kan mooy ku tabe kon mooy ki nga xamante dafay joxe lu gën ci alalam te du di seen retour waaye nag buy joxe du nattale du nattale mhm. joxe du nattale bu du buy joxe day joxe rek du xool li may joxe doy ëpp na kee wala ëpp da koy jox rek moom yoonam ci li muy joxe buy joxe tamit mën naa bañ a sóor boppam. xam naa bu baax li mën naa bañ a sóor boppam mën naa am tey léegi léegi joxe ko di xaar suba. mën naa joxe li mu yor ba mu jeex ta du baax xel na sax moom ah, poosam bi am na lu ci war a des. dafay ah, joxe rek xool baax na ko joxal muy joxe rek ah kon kooku mooy ku tabe. kooku mooy ki nga xamante ne mooy tabe. yonent bi nag. sallallahu weesu na mën a joxe mais dafa tabe waaye raw ñëpp ci tabe nag ah di raw ñëpp ci tabe eh, anas nettali na ne kaan rasul sallallahu alayhi wa sallam ajwadu naas kaana mu ne kaana ajwadu indama yatalaqa jibril fi ramadan nee na yontu moo gën a waaye rawatina nag tabeem gi buy tas ak jibril si weeru koor oh. foofu lay gën a tabe li tax mu muy gën a tabe boobu dafay nuru nuru yàlla ndax weeru koor walay uppi ni yàlla yi dafay hmm. dafay dafay dafay ko defee foofu tabe woon na bu weeru koor yàlla di ëpp di ubbi ëppi na mi moom mu niru niru yàlla di ko wan ne man maay sa jàmm waaw moo tax mu teg ci ne nee na jibril bu daa ñëw weer ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tabe moo gënoon a tabe ci yiw ci ngelaw gu ngelaw lu gu ngi dee ngelaw lu rëj waaw xam nga ngelaw fu mu génn bu mu rëj rek taw bu ko dee fii toog taw moo si taw xëy na nag am na ñoo ne baatu olof duñ ko mën a comprendre mooy rëj bi waaw mooy ngelaw loo xam ne su ñëwee rek taw moo ciy topp xam nga misaal bu jotal la waaye misaal boobu sax mënut a misaal yoonu bi sallallahu alayhi wa sallam ci tabe boo duggee si exemple yonent bi ni mu ko dundee rek nga xam ne kii ñii ñiy misaalu yonent bi la alayhi wa sallam mënuñ kaa misaal lañuy nattale rek dëgg la dañuy na dañuy rek dañuy xool lu gën a jege xel rek ñu jox ko ko waaye moom moo raw lool yooyu la waroon a misaal nito nito rek yonent bi waaye ñu nito yonent bi ak yooya dëgg la dégg naa la dañoo wax ngelaw li dafa tawe ba mel ni yonent bi la ñu wax waaye waxuñu yonent bi dafa tawe ba mel ni ngelaw li macha allah mooy wax ne yonent bi dafa tawe dafa tawe de lool lii wane na tabe dafa dafa tabe moom dafa confirmer ab tabeem moom sang bi waaw sallallahu alayhi wa sallam wax ji rek xaj bi ma la ne bu ma ko nettaloon rek doy na ñu xam tabeem bi Abu Hurayra nettali na ko def naa abizar tamit nettali na ko ndax xadis bi abizar la àndaloon dafa ànd ak abizar génn Madina mhm. ci jaar ci ci mbedd yoon Madina yi mhm. ba mu demee ba jib Uhud jabalu Uhud montagne bu Uhud mu wax abu abu abazar naka wallaahi nga montagne bi su ma ko amoon wurus ba mu fees du kontaan bu ñett fan paase fekk dara des na si man lu lu néew lu may fayee sama bor inna lillahi wa la appal boppam amoon montagne oxot dagg si oxor lool milliardaire bu ko déggee war am gàcce dañuy tiit ñu am gàcce waxut million waxut milliard su ma lool ay goro yu bari la ok romb na milliard. waaw kenn xamul noo koy tuddee. bëri su ma ko amoon ci Uhud du ma kontaan ma xol bi du kontaan bu ñeent fan passé te joxewu ma ko si yoon yàlla lépp ba mu jeex lu dul loo xamante ne ni dama koy dundee déedéet dama koy fayee bor. ay borom sax ndeke daanut bëri. waaw xam nga ne mooy du ci def. du am dara waaw mooy daal ñeenti fan daal du ma dese dara. luy confirmer loolu mu wax dafa mës a toog. bokk ci feebaru bu mu yéegee génn jamono génn jamono ci jëmmam yonent du génn jamono leer gi du génn jamono moom jëmm ji ndax yàlla ba mu ba mu ci <laughs> ah, moom la jëkk amal wallaay kon tamit mooy mujj mooy mujj <laughs> isan ah, kon huwa al mabda wa intihaa هو آه، المبدا هو انتهاء هو المبدا هو انتهاء نانتيام نانتيام بوب لوكو ماي دا ياك ايميشن دي كونتينيل تي تي تاوي جو واو سي فيبرام بوب مو جين جامونو صلى الله عليه وسلم دا فا لاج عائشه رضي الله عنها نكو نعم، نو اور نو اور با ديف دا فا تاوي فاتليكو اور بو بو بو بو بوم دينكون عائشه موي صدقه يي نيو لا موكاي دون جوخ عائشه نه نعم، موي تولون سي ay juróom juróom benn juróom ñett ci or or Aysa ne ko maa ngi ko denc mu ne ko lan laay wax yàlla su ma taseeg lan laay wax su ma taseeg yàlla fekk baa ngi dencoon li subhanallah ñi nga lan laay wax yàlla lan laay wax su ma taseeg yàlla lan laa koy wax lan laa koy lay lan laay def yàlla fekk maa ngi génn àdduna bàyyi ji te yonti wax nañ la da daan xisaab bakkanam bi lu raw noyyi ak dellu ba mu waxee saxaaba yi na ngeen foog lu ñu ngeen mel ñu ne ak dee ñu ne ñun de dañuy baax buñ xëyee duñ gont mooy leen man sama bakkan su ma nooy bu génnee damay jàpp ne du duggaat kon moom chaque jour mu ngi teewlu nekk laxasa bi mën na faa uyu bi boromam moo tax kooku amul jot denc mm. xaalis lu mu am rek pasar pasar waaw joxe noonu la doon xiirta saxaaba yi waaw moo tax ci xadis bu mu la mujjee moom ak abuzar ne ko yawma qiyaama ñu ñu ñu ñu ëppale ñooy gën tuuti le lu dul koo xam ne yàlla jox na alal ju bëri mu koy def ñii goos ak droite di ko joxe gauche ak droite ci yoon yàlla mooy ku yàlla jox joxe ko yëpp comme moom nu mu ko waxee woon waaye xam nga loolu fee la bu mu def moo tax ba muy faat bàyyiwul dara bàyyiwul luñ luñ mën a jàpp daal waaw waaw mbubu koŋ mbaam yére bu mu xubbuse woon bàyyiwul lu bon gaa boot yu mu fi yonent bi te faatu baay ba xam nga loolu day moo tax noonu mu jàppee digganteem ak boromam kóolute gu mu am si digganteem ak boromam looloo taxoon nag mu mën a joxe mm-hmm. ci loolu tamit daa doon yar saxaaba yi na ñëw fekk bilaal denc yore ay ay ay jalab tàndarma mu ne ko bilaal lii nag mu ne ko lii ne dafa koy denc ngir li si teral gan yi kaga gan islam kaa fonk hmm. mun na ko yaa bilaal anfiq wala taqsa min zil arshi ixlaala ci <laughs> bi financé lii bul ragal ci yàlla ak ñàkk mooy bilaal looy denca da nga xam ne da nga jóge wala da nga des banaan samay gani ëllëg joxeel nga yi bu ñëwee nga bàyyi leen ak yàlla. su ma yaree saxaaba yi waxuñ nag denc baaxul waaye loolu mooy ak mat gum doon yaree saxaaba yi moo tax saxaaba yi gën mat ñëpp. kon philosophie boobu ak noonu mu ngi moo taxoon alal lu bari bëri bari mu joxe ko. te bu koy joxe du nattale. Jubayr ibnu Mutaam dafa wax ne dafa nettali ne. yonent bi sallallahu alayhi wa kenn daaw ko laaj si islaam lu tut jox na la mu ne benn bis ab waay daf ko laaj mu jox ko ay gàtt yi nekkoon diggante ñaari montagne mu jox ko kenn jox ko ko waa ji job mi tiit ok moo nga ñëw laaj benn waay rek benn xamuñ la defaloo islaam dara defoo benn jaloore ñëw laaj rek wala gétt gi wala gétt yi yaa ko moom jëlal commencé koo nu doon joxe moo tax waa jommi daw si gaaf mi yeneen gaaw dugg si lislaam Muhammad sallallahu alayhi wasallam dafay joxe joxe ni koo xamante ni ragalut ñàkk boobu jàpp ne Muhammad dafa riis riisut loolu mu la jox moo gën a soxla xoolal jikko bi nga fi ñëw ñu jikko bi ku xamul da ngay jàpp ne da kii kii waxuma la milliardaire. mais waaw waaw parce amul dara mais digganteem ak yàlla. konti gu mat sëkk. ñàkk gum soxla àdduna waxoon na la dama fa mel ni ku fay ji noppalu si ab garab rek yàlla moo tax noonu la koy jàppee. moo boo jàppee àdduna noonu alal yi doo nangu muy fanaan sa loxo waaw dégg naa sëriñ bi mu wax maam Cheikh Omar loolu la loxo bi yàlla balaa gis. mooy loolu loolu. <laughs> waaw ah, loolu nag. Euh, martaba la de. ah waaw am na ñoo xam <laughs> kon noonu la ko pratiqué. kon da doon joxe joxe yu bari Safwaan ibnu Umayya bañ bam ba mu defee fatxu Màkka yàlla may ko si ndam mu jàll Xunayn yàlla may ko si ndam dafa gañe màng mu bari bari bari bari waaye yontu bi léeg ñu nekk toon jullit daan nañ jox si màng mi ngir tàpp seen xol bëgg loo leen lislaam mhm. bokk na si ñim jox jour boobu Safwaan ibnu Umayya bokk na ñu joxoon jour boobu euh, Uyayna ibnu Hisn bokkoon na ñu jox Sufyaan ibnu Harb bokkoon nañu jox tamit Abbas ibnu Mirdas waaye Safwaan ibnu Umayya keroog ñu mu leen jox ku nekk téeméeru gëlëm la ko jox téeméeri gëlëm. téeméeri gëlëm. nit ku nekk. waaw téeméer téeméer téeméer téeméer ci màng. waaw. moo tax safa ñu nee na waxtu mu may jox man maa gënoon maa ko gënoon a bañ waaye mu may jox mu may jox mu may jox ba ba ma kaa bëgg si lépp. noonu la doon joxee du xool kii am nañ jiite ngaas ah, du xool kii defal na lislaam dara du xool kii tay tàkk waxoon naa la ah, ah, mus naa toog jumaa ji maa ngi mu ñëw jox ko mu jeex Fatima ñëw di laaj wàll lu lu barkeeloo pour këram dimbali koo ko si liggéey bu dis bi mu ne ko demal nga doyloo zikar yi ma la jox xam nga ne kooku kii moo tax misaal la mu mag màgg màgg màgg si si wàll wàll joxe eh, misaali joxe sax buñ ko toppee wallaay temps bi daanaka wallaay temps bi daanaka du ko du ko temps du ko mate wallaay wallaay waaye yooyu rek si ma teewloogu ay ay ay misaal la li tax ndax joxe dafa bokk si loo xamante ni dafa bokk ci jaamu yàlla yu kawe day tax yàlla bëgg la day barkeel sa alal ndax yàlla ma anfaqtu min shay'in yuxlifuhu wallaahu xayrul raaziqiin kon boo buggee man dala si yuqridu llaaha qardan xasanan fa yudaa'ifu lahu ana kuy lebal yàlla yàlla fulal ko ko joxe day tax musiba yi waaw sanaa'ihul xayri taqi suu aw taqi masaari as suu xalaafaat wal muhlakaat ndeysaan jëf yu baax yi joxe yi ngay joxe dalay fànqal ay musiba day tax yàlla këral la si ron aras ndax jàng nañu xadis bi ñi nga xam yàlla dañuy këral ron aras koo xamante ni dafay joxe te càmmooñam du xam du yëg lu nday joor ba joxe kon day wal texe at àllaaxira waaw موتاخ ان الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ها لا يجي لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كم الشيطان يعدكم فقرا ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة من الفضل الشيطان دليني دليني نياخ ها يلين ديغل ناي كما توجور boo boo joxee da nga ñàkk boo joxee danga nga ñàkk di dee digal lu bon waaye yàlla moom mu ngi lay mu ngi lay ñuy euh, dig njéggal kon joxe dafa bokk ci ñuy waral njéggal yàlla ak hmm. ngërmaandek yàlla subhaanahu wa waaye lu ci gën a am solo mooy joxe dafay defar xol gàgg-gàgg xol yi ci li tax nga maasum la ñu tuddee maal maalan illa li maylil qulubi ilay hmm. lu xol yi dañ saa jeng rek kon ma alal dafa sax si xol. waaw kon lu koy génnee si xol. xolof da ko wax lu koy génnee si xol mooy bëril di ko joxeel kon soo ko joxee yàgg di ko joxe day génne si ananiya ah man rek jox keneen mm-hmm. dafa am solo lu ci ëpp solo mooy euh, dimbalante bi waaw waaw julli dafa dimbalante yàlla yonent bi wax ne bokk na ci jëf yu gënal yàlla yàlla gën a bëgg ahabul amal mooy ngay dugal mbégte ci xooli jullit bi suwaat nga teggil ko njàqare wala nga fayal ko bor wala nga yëkkatil ko xiif te loolu yëpp joxe la kon yooyu yëpp dafa ci ci ci waral dimbalante la mm-hmm. yonent bi daf ñoo oo si dimbalante dañu oo si dimbalante hmm. te waxoon naa la yonent bi yonent buggut mukk moom muy xéewu te kenn si jullit ñi mu ngi ñàkk kon yëg-yëg boobu ku ko am doo garde alal loolu da nga kaa nga kaa joxe gannaaw ba nga ba nga defee yi nga xamante soo ko amul nga ñaani ko boo ko defee la ci des joxe ko si yoonu yàlla kon kii mooy ki nga xamante ni mooy exemple bu mat bu ñu yàlla xolloo ci joxe donte kenn mën mel ni moom waaye soo ko xoolee rek danga dem ba jikko ji nga fàgg ko te doo yëg ne fàggu nga ko te boo ci fàggoo moom boo xoolee rek da ci fàgg loo xamante ni dana la musal sa digganteeg yàlla te dana la yëkkati ay maqaama ci yàlla subhanahu wa taala mm-hmm. kon waxtu dafa xat lool dafakat lol lool ñu xam ne joxe mom ci l'islam la bok joxe ci jikko ju rafet la bok joxe ci luy defal société la bok tay xolal suñ société bi bo alal yi wallahi borom milliards yi léppam fi borom building yi waaye tay bo xoolee société islam islamique bi da mel ni tey lañ gën xif wallahi da tey lañ gën a feebar wallaahi tey lañ gën lot lépp daal boo xool ci lañ nekk te pourtant yàlla lu mu ñu jox doy nañu sëkkal wallaahi doy nañu sëkkal waaye lu ko waral mooy ñu yore alal yi dañoo comprendre falsafa islam ci alal jël alal ji aj ko moo tax yonent bi waxoon na ah, ah, Hakim Ibn Hizam ne ko alal ji ndax yoon bokk na sax ci taxawaayu tabem Hakim ne damaa ñëw laaj ko mu jox ma ma laajaat ko mu joxaat ma ma laajaat ko mu joxaat ma moo tax yonent bi kenn daaw ko laaj jaabir kenn daaw ko laaj mu ne la déedéet ah, waaw koo laaj laaj ko laaj ko même peut laaj sax mu yàgg mu tëjal ma bunt bi kon daawut wax déedéet day joxe di joxe di joxe dama ko laaj mu jox ma ma laajaat ko mu joxaat ma mu laajaat ko mu joxaat ma mu ne ma alal kii dafa neex dafa nëtëx kenn du ko jël ah ci foqale ah lu dut yàlla nattoo na la ko waaye kenn du ko jël si doylu lu dut yàlla dimbale na la si wala nu mu ko waxee si xadis bi ci xadis boobu la ko waxee yedul oliya xeer mi ne yeddu suuf la loxo bu ci kaw moo gën loxo bu ci suuf gis nañu doon yaree daaw dox déedéet waaye teewul dana la jox jàngal la waaw bu fekkee kon kon toujours da daan joxe rek toujours da daan joxe am si léegi du jeex da ngay doon léegi rek am lu ñëw sa sa sa waaye ñu xam ne euh, société bi bu fekkoon philosophie boobu lañu am mm-hmm. mu ko doon tey kenn du xiif ndax waxoon naa la alal ju des bu sa loxo moo moo ko yàlla mm-hmm. dakaa alal caa nattu jaarale ko sa loxo manoon na kaa jox keneen te moom la ko wërsëg mu jaarale ko sa loxo xool boo xam danga ko àggale mhm. soo ko àggalee matale nga kólle rek yàlla gi mhm. def nga yàlla bindal la tiyaabo fulal la ko barke la soo ko téyee nag lekk nga lu doonu sa cër fecc nga kólle rek yàlla ci jox gum la ko jox yàlla si yàlla musa kon bu ñu ko doon roy rek société bi dañu am ay hôpital yu baax te état du ko génnee ku feebar da nga faju te doo génne lu bare borom néegu dool seen doom yi danañ jàng te duñ génn bitim réew dem feneen ak ko noonu lépp ay maase alam islam bi jot nañu xoolaat seen bopp ku ci nekk daggee ko sa bopp sa njaboot sa société su ko defee ñu jël yonentu bopp def ko muy suñu royuwaay ci lépp def ko muy suñ ñiituwaay si lépp def ko muy ki nga xamante ni saa su nekk rek suñ xelan si moom suñ yitteeng si moom euh, moo tax dañuy ndokkeel euh, comité d'organisation bi si xadra bi si thème buñ tànn ci gàmm gi muy wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee rek jub su ngeen ko toppee rek jub kon suñ problème bi yëpp mooy dënge njàngale yontu yi kon war nañu delluwaat si njàngale yontu bi ngir ñu am مرتبة بين خامتين موم لنيو بغلون تموي كنتم خير أمة أخرجة للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كون جنك خير وخامتين دغيني ديغل لو باخ تري لو بون تا تري لو بون موي كيغا خامتين داغا فور سي ديكو داغا فور سي سي جانغلي فور تيميت تي سي ماتواي نداخ بون بكم تولني تاي musulman yi bëri nañ ci lool daanaka ñooy ñaareel ci bëriwaay ci diine yi waaye tey décision yi jël si àdduna bi yëpp peese wuñ ci dara amuñ ci dara lu koy firndeel rek Gaza nuñ la ñuy def Palestine ñu ngi la ñuy dóor di dóor suñu mbokk mënuñ ci dara xar bu ñu ngi àppi Israël muy def lu ko neex tey nga xamante ne nii bu jullit ñi amoon doole tey waxuma musulman bu ñuy dóor képp koo xamante ne àdduna ñu ngi lay def naka suñ noonu rek kenn du ko ñeme ndax am na force bu taxaw man laa defi loolu yëpp li tax àgguñ foofu nag mooy ndëngee yoon jàngale yonent bi kon wa in tutiihu tahtadu bu ngeen ko toppee rek ngeen jub nekk si kanam di dogal si àdduna bi kon ñu ngi ndokkeel comité d'organisation bi di ndokkeel Shamsu TV di ndokkeel ñëpp ci gàmm gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla bubbal si leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may ñu si jikkoom yi yoo xamante ne dañ texe àdduna texe àllaaxira te loolu yomb na ko باقي انت وما زالك على الاعجاز وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى اله وصحبه وسلم ما شاء الله مبوكي ينكو ديغندو الحمد لله سنتار يالله بو باخا باخ سي سين ايميشن بيغا خامني موي السماء المحمديه استاذ لي غاندي ليرنا تا امنا سولو تا ياكارنا ني جيكو بيغا اندي تاي ني سا سوما لو ني واخ رك سا سو جيكو بي نيوي رك غا خامني واجي دال موم موي واجي واو ندخ كوم نيكو وي كات بو خيوون يا حاتم الزمان في الجود والكرم فالبر ديدنه والجود كالمتري waaye comme li nga wax rek dañuy jël taweeg yonent bi di ko misaalee taw waaye taw lañu war a jël di ko misaalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kuy joxe bay joxe liñ ci tolloog ci téeméeri gëlëm ca jamono yooyee ku ko xam xam ne kii joxe kat la woon kon yàlla nañu yàlla def ñu mel ni moom ci joxe donte nag mel ni moom yombut waaye yàlla xërtal ñu bañ mën di joxe te uh, bañ tabe bañ a mën a doon kuy joxe comme ni nga ko waxee ndax léeg-léeg nit ki di joxe te am lu mu ci am lu mu ci bëgg ñun nag yàlla nañu yàlla dimbale bañ mën di joxe te duñ ci bëgg dara waaye def ko ngir yàlla rek ngir yàlla defal ñu taw feex ci joxe di santaat yàlla bu baax di gërëm di leen ko wax rek comme ni mu ko waxee wax na ko ne thème bi nga xam ne moom lañ indi ren ci gàmm gi mooy wa in tutiihu incha allah suba ci kàttanu yàlla dinañ ci def plateau spécial boo xam ne dañuy moom mii dana fa teew ak oustaz Mouhamed Moustapha ak yeneen yoo xam ne danañ fa teew parce que taabu rond lañ koy def waxtaanee aaya boobu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala ko wax ngir lan ñu gën a mën a préparer suñu bopp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bala gam ak dewen ñu mëna nek ay nit ñu bah kon ñu ngi yalla bu baax di leen gërëm di sant mboolem ko xamne ne doon top émission bi ak foko ko topé a seen émission asmaïl al-Muhammadiyya mu ngi won non di ñaan yalla ñu téwé ko ay dewen bari bari waye nak émission bi yemul fi gis bu gam gi passé danañ ko continuer di def même suñ koy def ben yoon ci semaine bi dinañ ko def ñom ñaar kenn ku nek di ñew par semaine wala par par ayu par incha di sant mboolem technicien yi nga xamne ñoo doon japp ci caméra yi moy Cheikh Abdou Abdou Khadir Diallo ak Cheikh Ahmed Tidiane Kobar ak mboolem ñoo xam ne ñu ma nekkoon ci liggéey bi ñu nekkoon ci son beeg ñu nekkoon ci eh, lumière bi ñëpp ñu leen di di leen gërëm di amaan mbégte bu baax di ñaan yàlla nangul ñu ñu teewe ko ay bari bari wa ma zalika ala bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu لولاه ما كان من جن ولا